kon dinañ jox sëriñ Cheikh ibnu sëriñ Abdoul Khadir mu indi kàddu yi. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi alqaa'il fi muhkami tanzilihi wa anna almasajida lillahi falaa tad'uu ma'a llahi ahadan. wasalaatu wasalaamu ala man bu'itha mu'alliman sayyidina muhammadin safwati bani adnan wa ala alihi sahbihi ahli al wa radiyallahu an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri diini wal watan mawlaana al abdil xadim ahmad ibni muhammad ibni habibillah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalul kilifa gu tedd gi cheikh Mouhamadou mi nga xam ne moo fi tey jëmmi ci kaw suuf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 mu joxe tànn bis bi nga xam ne ci lañ ko war sëriñ Mbacke yu fay dana ci ñëw ci kanam leeral niñ niñ ko fi fi mu war a tàmbalee ba fi mu waree am sëriñ bi nag kon wax ne eh, lim soxla ci bis bi la ci jiitu mooy dellu ci yàlla ak yëkkati mbirum sëriñ Touba ak yëg mbirum sëriñ Touba ndax sëriñ Touba kat li ko taxoon a lépp.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 xelam dem ci na war naa def jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dox diggam ak loolu iza sakartu zalika almabita wa zalika al wa thubuta taarat ila aljihaadi bil armahi nafsi walakin zabba an ilmaahi kon nag jàkka ji nañ xam ne le sëriñ bi waxoon sëriñ bay saar ci jumaay Tuubaa ne ko danaa bàkk sama bàkk dafa jotagut sama dëkk ba ci Tuubaa ak sa sama jumaa ja ma fay taxawal mooy sama bàkk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 ci kàttanug yàlla ak ci baaxu Serigne Touba suñ borom def mu sotti ci loo xam buur ko bi mottali yéene moom mottali waale yéene ña ko jëkk Serigne Mbackiou fay mii nga xam ne nag yàlla def na mooy jëwriñu sëriñ bi ca Ndakaaru doon nañ jëwriñu liggéey bi nekk fa ca ba liggéey bi tàmbalee ba ni liggéey bi àggee kon lépp Serigne bi tegaatoon ko ci loxoom ñu ànd ko kon moom lay jox kàddu gi moom mu leeral.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 nekk ca tamit ca waxtaan yi nga xam ne dara génnu ci diine dara génnu ci lislaam dara génnu ci tamit mbindum Serigne Touba bu ñu demee ba ca guddi ga mbokk taalibe yi ñu ànd ak ñoom it rek nekk ca ci njàngum xasida ma ak njàngum alxuraan ci sa di talaata di bés boo xam ne bii dañ koo jagale suñu maam jaaratulaay soxna Mariama Bousso nga xam ne moom la ñu jagleel bés bi nga xam ne def nañ ca thème yoo xam ne boo koy seetlu. mooy thème yi gën a rëy sax ci thème yi ndaxte daanaka suba gi ba ca ngoon ga yépp ay waxtaan la yu jëm ci diine yu jëm ci lislaam ak yu jëm ci li nga xam ne lii mooy njàngaleem Serigne Touba guddi ga ñu jagale ko nag suñu jàmbaar ju mag jooju di maam Cheikh Ibrahima Fall di taalibe bu magub sëriñ Touba bi nga xam ne dañ koy jàggale guddi googu yépp mu nekk li ñuy tuddee maanaam guddig maam Cheikh Ibrahima Fall bu ñu yàlla yóbboo nag ba ca àllarba ja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 gàttandoo tawféex ban àggal ji la ci suñ suñu yéene lu mbirum sëriñ bi rek biñ ko gisee ba ko noppee gis ci boroomam rek la nekk te lim ko doon liggéeyam bépp itam mi ko tëkkoon ci te mu ngi ko tënkoon ci ilaahu kalimatillahi al-ulyaa mooy yëkkati baatu suñu borom la ilaha illa allah muhammadu rasulullah loolu rek la woon loolu nag nañu si yàlla àggale ban agale si suñu yéene ba teewe ko ba jëf jëf-jëf ji lañ nañ ko war a jëfee nam gën a rafet yàlla nu yàlla gàttanu tawfeex ban ban ban mën ko àggale euh, foofee nag euh, yàlla gën noo dimbali ba gën a mën a yeesal sunu sunu sunu sunu sunu sunu jaayanteeg Sëriñ Tuubaa euh, ci liggéeyam bii nga xam ne moom la ñu fi bàyyil foofee nu gën fa yeesa suñu jaayante euh, fas yéene ko taxawal ci liggéey bi euh, suñu kem kattan lu nu man ñu ñu def ko ci taxawal sa sàmmal ko liggéeyam bi lu nu mënut nu jéem ko ba tere alhamdulilahi rabbil alamin Cheikh Bass ak euh, sëñ Mouhamadou ko xanaa li ma ci gën a dolli ñu xam ne ñu woon nañ ñëpp bokk jullit yëpp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 noo ci yem képp ñoo ko kilifa diine yi daa ñoom ñoo fi diine di sàmm diine te dem sëñ Tuubaa léppam diine la léppam lislaam la kon noo ngi leen ci woo te ñu te dina xamal ne liggéey bi kat noo ko bokk noo ko bokk appelé wu leen ci wu leen ci dara kon nag il faut ñu